barki Cheikhul Khadim maa lay lay nuyu nag ci turu sunu jëwriñ dañ Habibulahi Mbacke mi monsieur Mamadou Fadil ak sëñ Abdou Lahat mu sëriñ Habibu ak sëñ Abdou Fata Guèye ak mbooleem euh, mbooloom Touba ca kanam ñoo euh, ma jox seen kàddu ne ma nañ ñëw leeral la aslëf ci li nga xam ne daaw bi ñuy toll ci waxtu wi ñëwoon nañ ci yow waxoon la ne danoo am yéene yi liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi waaye rawatina lu jëm ci wàllu assainissement bi ndax gis nañ ne màggal gi day dugg lool ci jamonoy nawet te jamono yooyu dem beeg dikk bi day jafe lool ñu ne comme la ñuy jéem a liggéeyal sëñ bi ci gépp fànn euh, baax na lii di wàllu assainissement itam donte lu diis a diis la ñu jéem cee bay sunu waar ginnaaw bu ñu taxawalee commission bu ñu tuddee commission environnement muy dox ci lu jëm ci wàllu assainissement ak wàllu naatal dëkk bi ci wàllu ay garab ak wàllu hygiène euh, daaw lañ ko taxawal ci 2020 bi daal di tàmbali nag doon jéem ci lii dara bañ ñëwee wax la lañ ci mébét yitam nga rafetlu ko lool jox ñu ci ndigal boo lañu ko Cheikh amadul Bachir mu sëñ Abdul Xaadir euh, nu dem seeti ko waxtaan ak moom moom itam mu def ci lu am am solo te mooy xool ñi nga xam ne ñoo daan yëngutu ci fànn woowu te mooy ñu yor lu jëm ci wàllu tali yi ak lu jëm ci wàllu assainissement wu dëkk bi ci wàllu état bi mu boole ñoo ñoom ab jataay ci këram ñu daje fa waxtaane lépp mu jox ñu ndigalul nan ànd liggéey boobu bañ déparé ca loola nag euh, nu defe ko noonu mënu ko waxee woon te mooy lépp luñ nar a def ñu woo leen ñu waxtaane ko xawal ko ba muy lu yell tey lu jaadu euh, ñu fas ko yéene ànd ak ñoom jëfee ko noonu ci noonu kon lañ doxee tànnoon itam ñaar fukki barab ci dëkk bi yi nga xam ne gis nañ ni moo gën a fés ci wàllu ndox mi niñ ko doon tànnee it mooy dañoo ànd jóg comme ci ay gone ci dëkk bi lañ juddoo yaroo fi xam nañ barab yi nga xam ne nii day taa xam it yi ci gën a fés ñu tànnoon ba am ci ñaar fukki barab yoo xam ne dafa jël ñeenti xiblay dëkk bi yëpp ak digg dëkk bi te buñ ciy joxe misaal ci loolu mooy euh, bu nee digg dëkk bi mën nañu wax fa mel ni marché ocas ñeenti xiblay dëkk bu dee wetu gànnaar gi mën nañoo jàpp tali bi jógee Mbàkke jëm si Touba boo ñëwee borom bu arrondissement ci station Shell bi euh, dafa amoon taataa bu jafe boo xam ne jamono yooyu bu bu tawaan Euh, ñaari voies yi benn bi rek la nit ñëpp di bokk waaye foofa deesu fa mën a tee jaar waaye itam boo ko jëlee noonu ci corniche bi jëm corniche su Daara Jolof itam di nga am mbedd mu mag mooy jot ci sandi joor ñu koy wax mbedd mu jëm si xaw ga ab 30 la foofu itam diirub nawet bi kenn daw fa jaar soo ko jëlee noonu itam wéy tuuti da ngay jot trente bu lay indi pencum kër ñang foofu itam 700 mètres la ci bunt bi da daan am ndox ba kenn du fa mën a jaar boo ko jëlee noonu wéy itam dem ba yoonu Daaru Rahman wi nga xam ne boo jógee Daaru Rahman rek cëppeelu ci corniche bi moo la war a indi tournalu gaar bu ndaw mbedd mu mag la mu am solo waaye bu masaana taw kenn du fa jaar ndax na lu mat ñeenti taataa yoo xam kenn mënu am foo ko jaar boo jógee noonu continuer itam dem ba fa ñuy wax yoonu njurul tali boobu wàcc jëm jëm Xelkom te dem Taïf ci buntu bi foofu itam jafe-jafe la woon mën faa jaar jamonoy nawet ndax kenn du fa mën a jaar soo wéyee noonu ñëw ci penk bi itam am na 30 bu ñuy wax kër sëñ ñaan Diop foofu itam euh, mbeddum 30 bi yëpp ndox mi da ko daan jël daanaka lu mat 300 mètres yoo xam ne da koy da koy da koy nangu diirub nawet bi mën naa taw am lumat mat semaine wala lu ko lu ko ëpp loo xam ne kenn du fa mën a jaar. Euh, soo ko jëlee noonu itam wéy ñëw ci côté gànnaar bi euh, mbedd mi nga xam ne moo jógee station Darou Khoudoss jaar ci buntu tokkooru sëñ Cheikh bi dem ca corniche ba foofu itam ñaari point nga fa yoo xam ne bu njëkk bi boo génnee marché bi tuuti la am beneen booy dabaat ñett la sax ak buntu tokkoor ba. moom itam jafe-jafe la woon ci ngir mënees faa jaar jàll ci jamonoy nawet boo ñëwee ci digg dëkk bi itam fi ñuy wax marché Ocass marché ocas bi am na fu lu mat ñeenti mbedd yu xëttaloo yu mag yoo xam ne foofu sës rek daanaka ci kër sëñ Mamorum sëñ Fallou kenn daawu fa mën a jaar ñun bañ fa demee di ko visiter daanaka amuñ fuñ ko mën a jaar ba yaay mën faa àgg ndax nu muy mel ndox euh, soo jógee foofu itam ñëw ci euh, fuñ mën a tudde soowu bi tey mooy ci corniche bi boo fi jëlee am na bu fi jógee jaar fuñ daan wax usine xorom dem euh, jëm Touba Njaareem foofa itam euh, ndox mi da koo nangu ab tali la waaye ndox mi da koo nangu yàq tali ba ba nga xam ne ay oto dañ fa daan daanu kenn du fa mën a jaar. Euh, li ko dalee itam foofu yi nga xam ne moo jógee ci station sel bi jël tali Touba Njaareem bi nga xam ne foofu itam boo demee ba ca kaw amoon ndox mu bari mu fa daan taa moo xam ne daf cee boole woon nangu tali bi ba yàq ko ba kenn mënu koo jariñoo yooyu daal ak yeneen ñu mel ni ñoom lañ tànnoon ne yii la ñuy tàmbule biñ ñëwee da nga jox ñu digal ñu tàmbuli ci jëm koo teg nag ci anam gi nga xam ne noonu lañu ko digale te fexe ba bu ñuy def ñu def la gën a baax ci loolu nag lañ ci demee ba toll ci fii daal suñu borom defal nu taw féexi euh, la ci ëpp solo bu ñu doon xayma liggéey ba ci téeméer dañuy wax ne juróom-ñetti fukki moom yegg na ba ba libéré nañ ko ba tey ji amul dara luñ fa mën a defaat am ci yoo xam ne ni mi ngi des ay ay ay des-des ñu war koo yeggale ni ki tokkooru sëñ Cheikh bi noppi na définitivement ba biñ tawee ren jii taw bi mujj njëkk a taw tey taw bu am solo euh, benn ndox taw tawu fa benn ndox tawu fa moom ña ngi ko jëlee ca tokkoor ba ba ci station Daaru Xudoos bi defal ko canalisation boo xam ne ci anam yi gën la bokk euh, ndax ni ñuy canaliser rek ci lu normal loola lañ ko def mooy wutal ko kanaal defal ko ay grille ci kaw tali bi defal ko rajo boo xam ne bu tali bi bu ndox mi ñëwee fam daan baaxoo taa Euh, du fa fekk ab tali waaye ciment fay fekk ak fer boo xam du xam nu mu koy def su ñëwee dugg ci canal yi jàll ñu wutal ko ay regard li ko dalee foofu ba ci station bi euh, mu jàll kon foofu moom sotti na coleet ci ndimbalul yàlla ak ak ak sag ñaan. bu dee fii jëm ci station Shell bi itam nga xam ne dafa jël li tàmbalee buntu gendarmerie ak buntu sapeur pompier ak kër sëñ Touba gi ci boppam nga xam ne day bari lu daan jóge ci tali bi di fa dugg ak biir kër sëñ Touba yi nga ne dañ ñoo jox ndigal ginnaaw bi ne nañ ko assainir moom itam ña fa dimanche bii war naa noppi coleet ndax lañ fa war a def lépp ña nga ca ba ay ay finition moo fa des moo tax mënuñoo ñeme wuñ ne noppi na ndax mën nañ faa xëyaat waaye dimanche ji jii di ñëw war naa war naa noppi li ko dalee foofu nag ba ci pencum mbay moom moomu ñuy wax yoonu Touba Njaareem ci ñaari rajo yi fa nekk yëpp ba ci station Shell bi loola lépp pare na loola lépp noppi na ba ba ñëw foofu itam ña ngi ko jëlee noona mu war a toll ci ñaari junniy ñaari kilomètre ak lu topp ba indi raccordé ko ci rond point poste bi loolu itam noppi na euh, yoonu yoonu yoonu daaru rahman ak fii nga xam ne moo jëm kër ñang ak fee ñuy wax euh, euh, fee ñuy wax yoonu si xaw ga tam am ñeenti ñeenti taataa yu mag yu xaw a ës yooyu fu ci ne def nañ fa tali buñ xaymaa li nga xam ne def nañ ko ci ay tali lépp cinq kilomètres cinq cent la buñ xaymaa tali cinq kilomètres cinq cent la buñu xaymaa assainissement bi juróom ñaari kilomètres la yu manqué maanaam six cent six mille neuf cent quatre-vingts mètres yoo xam ne def nañ ko assainissement boo xam ne dañ ko raccordé comme ay tuyaux mu dem fa mu war a dem yu yu manqué ñaar fukk ñaar fukki mètres kon nga xam ne juróom benn kilomètre la ak juróom ñeenti téeméeri mètres ak juróom ñetti fukk yoo xam ne lu ci ne assainissement lañ ko def am dañ koo raccordé ci ci réseau ONAS bi am ci foo xam ne réseau bi nu ko wala xaw na sor sori niki tali boobu nga xam ne moom lañ def mu jëm sexaw ga nga xam ne ñaari kilomètre la ak ñu def mu jëm Kër Ñang nga xam ne juróom-ñaari téeméeri mètre la ak bi ñu def yoon Daaru Rahmaan nga xam ne un kilomètre cinq cent la boobu moom dañ koy raccordé ak ak réseau ONAS bi waaye tali yooyu da ci am yoo xam ne nii mënut a dem ci réseau bi yooyu ay puits d'infiltration lañ koy defar yoo xam ne ay teen lay doon yu méngoo jamono yu wér yoo xam ne euh, buñ ko ci defee mu ndox mi ñëwatee dana mën a dugg ci teen yi benn ñu jël ko fa jariñoo ko wala mu seey ci suuf si te du ci yàq dara niñ ko xamee woon sax nu ko gën lañ ko defee ba bi fi waa ONAS ñëwee xool ko dañ koo yéem ba tuddee ko weneen tur ne ñun lañ daan def bokkut ak lii ngir rek xam ne sëñ Tuubaa moom kuy def la gën a baax nga ko war a defal. Euh, loolu itam buñ ko xaymaa war dañoo def ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci teen yooyu ngir mu mën a jël ndox moom nga xam ne mënta dem ci réseau bi ndax amatul fu mu mën a dem wala su fa suñ ko ci raccordé su demee dana fi indi ay jafe ci loolu daal moo jëm ci wàllu assainissement ak tali yi nga xam doon nañ ko jéem a euh, doxal ci kaw yoon wi teen yooyu ña nga ca moo des waaye ñi dese diirub un mois lañ leen jox ngir ñu war koo libéré ngir dafa war a pare fii ak weer ndax fas nañ yéene bala ñoo yegg ci màggal moom lu ñu tàmbali woon daaw day day pare day noppi coleet kon loolu mooy li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu moo jëm ci wàllu ci wàllu ci wàllu assainissement boobu ñu tënkoon ko ci. bu ko defee itam euh, ñu wax ne assainissement bu ñu doon yooyu ñu doon def bu ñu jëlee tali. cinq cinq kilomètres cinq cent la assainissement six mille neuf cent quatre-vingts mooy juróom-benn kilomètre ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk waaye rajo yi nga xam ne nii moom la ñuy defar ngir ah, ndox mi bañ koo yàq ndax fi ndox mi daan daje bu fa fekkee tali da koy yàq def nañ ci ñetti téeméeri mètre ak euh, ak ñaar fukk. ci loolu la ñuy waxee ni itam poste de santé yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko te doon la wax ne la noppi na ñett noppi nañ ci ñaar mi ngi nekk en cours ñu ngi koy liggéey. te jàpp nañ ne fii ak ñaari weer gën jaabari war naa pare te mooy bu ndaam ak bu Touba Njaareem yooyu itam euh, ñu ngi ci fas yéene mu daal di yegg balaa yàgg incha allah bu dee lu jëm ci wàllu ndoxu dëkk bi itam euh, woowoon nga sëñ Ousmane boole koog maire sëñ Ousmaanum sëñ Cheikh boole koog euh, ab laat Ka ngir ñu fexe nuñ góorgóorloo ci ndox mi ba yi daan am ci màggal bañatee am mu def ci initiative bu daal di dajale nag ñi nga xam ne ay kuréel lañ te mbir mi yitteel leen ñu war cee mën a jàpp ànd koog Maawu Rahmati ak OFOR ak sous-préfet woowoon na ci Touba ci kanam ñi ngi ko ànd ak moom ngir lépp luñ xool ba juboo ci ne luñ war a def la lépp lu ci ay koppar lañ ca mën a tàbbee ñu taabal ko ci. incha allahu taala jox nañ leen sunu kàddu ñu ngi wuy ji réunion yi ngir lépp luñ gis ne luñ mën a def la ba ndox mi dootu am jafe-jafe rek fas yéene ànd koog ñoom incha allahu taala euh, duñ ci yamit waaye lépp luñ ci xalaat ci ne luñ war a def la dañ koy ànd ñoom. ci loolu itam digal li nga nu joxoon ci ne corniche bi ci rond-point bu njëkk ba da garage Dakar jëm corniche su Daara Jolof lamp ya ñu joxoon nañ ko defar moom itam tàmbali nañ ko defar nañ làmp ya ba taxawal poto yi ba teg làmp yi ci kaw ba branché fil yi ba tey jii ci guddi war nañ ko essayer ngir taal ko kon moom itam mën nañoo wax ne noppi na diggante bi euh, euh, diggante bi lépp cent euh, téeméeri lamp juróom juróomi kilomètre la waaw téeméeri làmp ak juróom ñetti fukk la làmp bu poto bu ne day jël ñaari làmp boo ko boolee muy ñetti téeméeri làmp ak ak juróom benn fukk loolu itam noppi na te sa ndigal lañ lañ ko amee woon def nañ ko ba noppi na ci anam gi itam nga gën a mucc ayib niñ ko waxee itam liggéey bi yëpp luñ ciy def rek dañuy seet la ci gën ñu def te ñi ñu ci boole woon it lañ ko mës a àndal bañ ko tàmbalee ba léegi loolu daal mooy liggéey bi di wax ne itam xëy na kon am na juróomi junni làmp yuñ commandé ngir mu ñëw bu ñëwee dolliku ci liñ defoon ci leerub dëkk bi incha allahu taala commande bi mi ngi bëgg amub diir yaakaar nañ ne balaa yàgg dana ñëw bëgg nañ bala ñoo màggal mu tàkk incha allahu taala. atum 2020 bi dimbali nañ lu mat téeméeri daara ndax dafa bokk sunuy programme ku ci nañu dem xool la nga gën a yittewoo ci ci ci lu far bu ñu mënta def lépp ñu def ci lu am solo. def nañ ko ba noppi sëriñ daara yi itam dañuy dañ ci yéen a jël di leen ci ñu gën a jekku li ñuy def moom itam def nañ ci lu tolloog atum atum daaw. ñaari téeméer ak juróom-benn fukki daa sëriñ daar yoo xam ne formé nañ leen ren ji itam ñaareelu pàcc bi fas nañ ko yéene tàmbaliwaat incha allah ngir wéyal ko ak lépp liggéey bi rek lii lañ ci tënkoon ñu ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. liggéey boobu ba tabaarakallah mat na sëkk gis nañ yitte ji bu baax a baax wax dëgg yàlla naw nañ ko lool yitte ji dara desu ci ñu ko si Abdou waxee léegi ñu ko leeral léegi loolu la tubarkal la leer na lool léegi bu yaatu la kon nag loolu moom gannaaw buñ ca sante ba noppi dañ doon la ñaan rek xam nañ ne yéene ji ngeen ci am maanaam jiitu positif bi ngeen am ak yéene ji ak yitte ji ak taxawaay bi eh, fa tabaarakallaahu eh, dal na sunu xel bu baax a baax xam nañ ne lépp lu yee ci dëkk bi eh, ci loo xam ne ak defar la ñëpp mën ko jëriñoo néegu leen ci kenn. leen ci ndigal fekk itam ngeen def ko nañ leen ko digal loolu fa tabaarakallaa sant sant rek yooyu yëpp ay sant la yoo xam ne ñoo eh, ngi leen di gannaaw bu sant yàlla nu boole sëriñ bi ma ne fi ñu sant sëriñ bi mi suñu lépp teegal rek eh, ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax eh, ci taxawaay bi taxawaay bi wax dëgg yàlla yéeme na lool yéeme na lool. kon eh, loolu day day tax suñu daal gën a daal rek ci li war ci dëkk bi. man de man ne lépp rek taw feex la eh, fi ngeen fi ñu ko xalaatee fi ñu tàmbalee ko ba fi mu accès loolu taw feex rek la ma taw feex rek la eh, kuñ taw feex sëñ bi leen gàttandu rek <laughs> moo tax mu demee noonu moom taw feex rek la. ñaan yàlla mboom gën leen a gàddu tawfeex sëriñ bi rek ci jëmmi yéen a jéeg posté ñaan bu baax sëriñ bi gën leen a gàttu ngërëm moom ndax yooyu rek mooy ñaan yi gën leen a gàddu tawfeex bi fu ngeen bëgg liggéey bàgg rek ñu taw taw taw sëriñ bi gàttu leen ci ba ngeen gisee lu jot ci biir loolu nag li nga xam ne moom lépp nag ngërëma sëñ bi rek lañ ciy wut ñaane sëñ sëñ bi gàttu leen ak ngërëmam te gën noo woomatal boppam